jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su fi mu toll nii nag dañoo ñëw ngir ñu waxtaan ci làmb niñ koy waxtaanee mooy dañuy xool ñi nga xamante ne ay bëyër lañ ci làmb di liggéey ci làmb ndax ku tudd làmb tudd promoteur gannaaw promoteur moom mooy jël xaalisam jox ko mbër jàpp datam di ci daw def publicité def lépp loo xamante ne day jaay combat bi ñooñu tey lañ bëgg a seet seet si ñi feebar bi nga xamante ne am na di mbas mi. ngir ñoom ñu wax nan lañ ko gisee ak état bi lan la leen jàppale ci toogin gi nga xamante ni toog nañ ci waaye daa mel ni gaa yaa ngi nii toog de fekk naa président des jeunes amateurs mu ngi nii toog kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw champion bi maa ngi lay fay bu baax. Baye waaw ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. waaw maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. ana amateurs yi namu nañ làmb wala namuñu ko. waaw amateurs yi moom instant bi lamu nañ làmb Baye Djily ndaxte ku xam amateur xam ni moom bu dimanche jotee lamb rek lay bëgg de seetaan ñu gis vraiment feebar bi nga xamante ni dugg na fi muy mbas mi nga xamante ni yàlla suñu borom moo ko fi wàccee ñuy ñaan yàlla mu gaaw ko fi jëlee te ñu ngi am yaakaar ndax gis nañ mu ngi wàññeeku ndànk-ndànk mais vraiment instant bi ñu toll ni amateur yi namm nañ làmb parce que tamit amateur moom bu dimanche jotee amul benn occupation bu dem seetaane làmb mais moment bi gis nañ li xew ñuy ñaan yàlla yàlla ko jëlu ko fi ba mbëri reprendre seen ay entraînement amateurs yi aussi reprendre seen ay activité waaw euh, a am am amateurs yi yan combat lañ ci gënoon namm doon ko xaar ba moment bi waaw combat yi amateurs yi di xaar bokk na ci combat bi nga xamante ni tey mën nañu wax jour bi décret bi di wàcc muy samedi bi dimanche bi muy diggante Gamougoy ak Sokh nekk combat boo xamante ni ñu ngi ciy ñu ngi ciy encouragé ku mel ni Thiam production nekk suñu frère parce que gis nañ dépense yi mu ci def ak coono bi mu ci daj mbëri aussi def ko fi ñu dem bañ ne suba la ñu war a bëre ñu préparé wu ñu gis li yàlla dogal combat boobu bokk na ci combat amateur yi parce que combat bu amateur yi di xaar ak Papa Sow nekk combat boo xamante ni mën nañu wax ni moom mooy grand combat bi jotoon taxaw ci année yi ñëpp di ko waajal ñu gis li ci am. vraiment ak yeneen ak yeneen am na combat yu bari yoo xamante ni amateurs ñu ngi ko doon xaar waaw mais ñu gis li yàlla dogal ñu koy sante yàlla daal mais. Modou Lo Ama Baldé. mais Modou Lo Ama Baldé loolu mooy décligu làmb parce que loolu mooy combat bi nga xamante ni moo war a suqali làmb parce que làmb dafa nekk moment bi ci crise crise boo xamante ni tey laal na promoteurs yi laal na amateurs yi laal na mbër yi laal na ñëpp képp ko acteur nekk ci làmb rek loolu crise bi laal na la ñu gis combat bi mu taxawee làmb dafa amaat beneen beneen dimension boo xamante ne ko amaat nit ñëpp génn ku ne di ci commentaire ñu gis li ci yàlla dogal muy ñu téye suñu frère suñu papa muy Luc Nicolas ñuy ñaan moom aussi yàlla yàlla def ñu teggi yoon teggi ko loxo ba mu reprendre mais nekk na combat boo ni ñun amateurs yi ñu koy xaar parce que ñaari mbër lañ yoo xamante ni ku ci nekk da nga nekk ci yoon moo Lo yàlla def na gis nañ fi mu toll ci làmb nekk na roi des arènes Ama Baldé prouvé ba yegg si fi mu yegg mu may ko chance ñu war a bëre mu nekk combat xam tey mën na dekkalaat làmb mën na dekkalaat làmb moo tax amateur yi ñu ngi koy xaar bu baax a baax a baax te ñu ngi am yaakaar ni incha allah bu fi feebar bi jógee rek combat boobu dinañ ko fisale ñu taxawal ko ñu bëre ko mais ñu ngi koy xaar bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf champion. ñu ngi production sant bu baax di nuyu sa caméraman Basirou borom gaal gi maa ngi koy bëgg bu baax di nuyu Mbaye Diallo mi ma toogal ak président Gourando mi nga xam ne moo yor suñu waaw. yaa ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax a per Père maa lay ziar. yàlla na yàlla nangu ziar. naka sant alhamdulilah. mbaa ngi am jàmm. ñu ngi góorgóorlu. dundee fi mu toll ne mbas meeg làmb jeek activités yi arrêté yëpp nan nga ko dundee. Euh, métti na nag mais ñu sant yàlla rek dolli ñaan yàlla jëlee ko fi ba ñu reprendre suñuy activité di nuyu Gora Ndoye président des jeunes amateurs di nuyu Yaddaali production di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak euh, bépp jullit di wax ne ñu ngi ñaan daal di tàllal loxo yàlla di ñaan suñu borom pour mu jàppale ñu daal ba feebar bi jóge fi bañ delluwaat suñuy activité Père ñi la xamul yaay ñan euh, man maay mbay Diallo président national des entraîneurs de lutte mm. waaye waaw naka naka naka mbir meeg liggéey beeg yu demee noonu daa mel ni fi mu toll nii lépp gàllu góose na de. waaw effectivement parce que comme degré bi wàcc na ñu ne bu ken dajaloo moo waral euh, tous les entraîneurs arrêté activités yi parce que boo xoolee salle yëpp tëj nañ leen reprendre gu ñu entraînement yi di xaar euh, ñu lever ko. ba ñu delluwaat suñu activité liggéey xale yi parce que vraiment am na ci ñoo xam ne entraîneur yoo xam ne ñu ngi préparé combat di waaj te waxaguñ leen lu leer xamuñu ndax ren la ñuy bëri seen combat wala déwén ñu mën a préparé seen i xale waaw. merci jërëjëf. Idaly promoteur bi yow laa seet si tey ngir ñu waxtaan. ndax ndax fi mu toll nii. làmb ji toll na foo xamante ni mbër yu ndaw yee ngi xaar avance ñu ci bari fi mu toll nii kii waaye daa mel ni promoteur yee ngi téye seen gafaga rek woowuñu benn mbër jox ko avance joxuñu kenn mu téye mu bàyyi la nga nuyoo ñi lay seetaan ci wasaare làmb ñu ñu weel waxtaan. waaw maa ngi nuyu waa wasaare ñëpp di sant yàlla julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi te wér di ko ñaanal kilifa diine kilifa aada yëpp di ñaanal Cheikh Ndigal Sène suñu borom bàyyi ko fi ak bàyyi jili borom léegi-léegi maa ngi koy siyaare bu baax di ko jox wàcc waayam di wax ne gis nañ ñaani bu baax daal mhm. idaali fi mu toll ni noo gisee làmb ndax feebar bi dugg na ci dëkk bi activité yu bari arrêté na nan nga ko gisee ndax pour man njàngat la ci promoteur yu bari ñu xoolaat seen taxawaay ci làmb xool nuñ mën a defaraatee làmb ba mbas mi nga xamante ne téye na activité yu bari bu dellu si waatee promoteur yi ku ci nekk xam ban tànk ngay taxawee ci lamb waaw ginnaaw loolu rek maa ngi ginnaaw bi loolu maa ngi nuy suñu président Pape Dou Fall. nga ne moo jiite fi ma kuréel gi bokk. di wax ne ñun làmb dañ ci am lu ndax làmb li ñu ci lépp ñun promoteurs yi ak yi ak mbër yi ay conséquences yu bari yoo xam ne faaw ñu toog làmb réglé ko. ndax tey mënoo considéré ne tey promoteur jël mbër jox ko avance dem dem dem ba làmb ñu ne suba la wala ginnaaw suba la tey làmb yàqu ñun xam ne feebar bi moo fi ñëw tey ñu gis ne théâtre kat yeeg ku ne ñu ngi lay ñu ngi lay éviter pour di la yóbbu palais di la recevoir kon pour man Macky Sall euh, war nañu recevoir promoteurs yi nga xam ne maanaam tey dañoo nekk acteurs yi làmb nekk ci biir làmb di bëre ñun kenn ku ci nekk yaakaar naa sa moyen bopp moom nga jël nekk nekk promoteur di ko jox avance. tey beneen conséquence bi nga xamee ne am na foofu tey am na promoteur jox nañ mbër ay avance tey boo xoolee tey mbër boo ko jox avance am na beneen détail boo xam ne war na am diggante mbër mi ak promoteur bi kon yaakaar naa état bi moo war a gestu jàppale waa lamb pour maame promoteur yi nga xam ne dañoo joxan seen avance ñoo xam ne maa bu ñu demee ba am Macky Sall ne kat bës na leen ko ñu am yéen leen génne waat doole ko mbëri ndax itam ku ne xam ne mbëri jaay nañ seen ñi jaay nañ seen xar lamb jooju mujj niil kon boo jëmaat rek ñoom déwén yaakaar nañ ne Macky Sall moo war a recevoir yi nga xam ne ñooy dund coono li ci lamb ñu man ko wax jàngoroy lamb loolu nag dañ ko koy ñaan ndax nag sonn nañ ci ne maam yi jaar ci Matar Ba pour ñu dem ànd moom dem ci ministre bi loolu dafa jaadu ministre sport moo fi nekk mooy Matar Ba mais war nañu promoteur moom Matar Ba mu gëstu promoteur yi ñu ànd ak moom jàpp suñu loxo yóbbuñu ba ci président Macky Sall ñu wax ko naqaraayoo lamb ndax nag mën nga toog sa bureau nit ki ñëw di la wax naqar mais ki ci dund maam yi di ci am teraanga di ci am coono moom am na lu bare bare moo a ak seen nday mbili gi te ñun war nañu ñu nekk kon nañ lamb lamb dox jëm ca kanam gone yi lamb métti bari xam nga tey jii boo ko xoolee tey ñoom góorandooy ku ne xam na ne président góorandooy mi dimanche lu ñu amaa ñun làmboonu gën a bu ñu toogaa añ ba pare bu ñu taalee ataay après lamb lañ jëm dem seetaani lamb kon lamb bu ko bëggee nasaxal état bi nga xamee ne maanaam tey boo xoolee jamonoy Abdoulaye Wade bi ñu man seetlu tey bépp ministre bu fi rek wala maire tuddee la lamb nga ñëw doykal lamb lamb dox jëm ci kanam mais gis nañ ne état bi a dox amul benn ministre boo xam ne tey jii suñ la tuddee lamb ci biir muy ministre sport Matar Ba laa koy dooree maa boo ko xoolee mais jamonoy Ablaye Wade da nga doon gis dañu tuddee ministre benn ministre lamb wala benn maire ñëppay ñëw dañ koy ñëw dooleel ko lamb xumbu sponsor yi man a ñëw loolu dafa bokk ci lamb ñu ngi ñaan nag ministre bi Matar Ba loolu la ñaan mu gaaw nu mu gën a gaaw mu wol na président Pape Dou Fall ñu ànd dem ci ministre euh, président Ablaye Wade li ñu naqare lépp ci lamb ñu mën ko ak jafe-jafe yi lamb am pour ñu defaral nu lamb lamb dox jëm ca kanam. bi mu toll nii dafa mel ni président dalal na ñëpp mais kuréelu lamb man gisaguma ñii mbëru lamb yi muy promoteur yi. gisuma ñenn ñoo xamante ni président dalal na leen tey làmb dafa mel ni daal dañ ko dañ koo fàtte wala dañ koo dañ koo bett. waaw non dañoo fàtte làmb ndax tam euh, làmb mënoo ñoo liggéey rek arène defar ne ay milliards nga ci def làmb benn frais euh, arène bi dafa seer ci promoteur promoteur yoo xam ne sponsor amul tey jii ñun ñëpp bu ñu nekkee tey lii xam ne dañ cee nekk kenn ku ci nekk la ngay dund coono ba ngay dund yow yaa ko yëg ñii dañuy dem ci banque yi lépp ñii nekk ay commerçant comme suñ classe gi jënd jaay boole la yor yaa may dégg di def di def ngir maam askan wi bëgg kon bu ñu def pour askan wi bëgg te yow askan wi bàyyi la fi da ngaa war a gestu ñi nga xam ne ñooy bëggal askan wi ndax lamb fi ndool fi mu jëm nii neexu taw xam ne lamb ci yàqu la jëm ndax état bi dafa dafa dafa maamee ni ma ko mën a misaale daal mooy dafa rab arène ba pare lamb nara na sax man gis-gis bi ma am mooy état dafa génne benn koom-koom dimbalee ko ñi nga xamante ne ñooy sëfoor seeg ñu ni mel mais lamb ba tey dégguma ñaar fukk yoo xamante ne état yëkkati na ko jàppalee ko promoteur yi ndax ku ne xam ne ni promoteur mooy kii nga xamante ne mooy yëkkati xaalisam di ko jox mbër mbër yi am na ci ñoo xam ne jot nañ avance te fi mu toll ni bu saison bi ubbee nga idaale woo mbër yi mu jàppal komba bëgg seen combat taxaw est que du doon problème ci moom te état bi war na cee mën a jàpp bu baax a baax a baax. waaw loolu moom moo tax sànq rek li ma wax rek moo tax ma ne ñu ngi ñaan daal Macky Sall mu wool ñu Matar ñi nga xamee ne mooy euh, encadre lamb di promoteur yi ñu ànd dem wax li nga xamee ne mooy jafe-jafe lamb mu dégg ko xam ne itam mën a noo saafara ndax man su ma gisee comme li ma sànq bu ñu ne ay théâtre kat ak ay comédien ku ne ngi def affaire pur ñu di la defaral kon ñun ñi nga xam ne ay bëyër ren génn suñu moyen def ko ci lamb lamb daf ñu maame Macky Sall daf ñu war a gestu defal lamb lamb dox jëm ca kanam ndax lamb fi dool nii boo ko xoolee li ci jaay karab caax bi ci la nekk jaay karab gerte bi ci la nekk jaay karab crédit bi ci la nekk ñëpp ngi ci ñoo xam ne kenn ku ci nekk da ngay gis jaay karab kawe boo xam ne ci la am terrain te lamb lay ñëw day par dimanche di jaay lamb lamb di dox jaay karab boisson bi nekk ci ñëpp di ci dund kon tey bu ñu bëggee toll fii làmb tey kenn ku ci nekk daaw di ñun ministre Matar Ba mi nga xam ne moom moo jiite làmb moo war a def loolu sans tey benn promoteur taxaw ci site internet yi wala nga taxaw ci benn télé di jooytu naa bi daf ñu war a jàppale nit ñi nag am na ñoo xam ne ku soxlawul ndimbal itam tey promoteur yi am na ñoo xam ne soxla nañ dimbal te jamono bu ñu dee ànd bu ñuy xool ci ànduwaay koo xam ne sa tolluwaay bu ci xool da ne am nañ sa ginnaaw ñoo xam ne li nga mën mënuñu ko ñuy bàyyi loolu xel ndax ànd loolu lay jariñ ndax maaye booy bëgg ànd ak nit na nga moom ngir sa jikko mais bul ànd ak moom ngir jikkoom ànd boobu loolu moo tax mu yàgg kon waa ñun promoteurs yi yëpp laay wax de ne li li may jooytu man di ko jooytu ñun yëpp moom la ñuy jooytu ndax tey kenn du ñu ñëw di jàppale nga ne noo bu ma jàppale mais ki jiite nga xamee ne jii mooy président Pape Diouf Fall moom laay wax ne ko nañu fexee dooleel nu gis ñu gis Matar ba ànd moom dem ba ci Macky Sall ñu wax ko liñ bëgg jafe-jafe làmb ndax Matar ba mën na nekk ci làmb ngang ko nag mais jafe-jafe yi ñun ñi ci nekk di ci sonn di dem ci banque yi lépp suñu xaalis di ko joxe ñun ñoo ko xam association des promoteurs dañoo tëggoon fii làmb tuddee ko ministre des sports mais damaa jàpp ni fi mu toll nii est-ce que du yéen association promoteur seen ànd bi dafa des ndax ànd bi bu meloon ni mu war a mel promoteur yëpp dajaloo nga xam ni yéen ay tëgg làmb du du jafe ngeen toog naan dañoo bugg président dalal ñu dañoo bugg président dalal ñu te ba tey loolu yéegul yéegul benn yoon yegg ci kaw ci ñan la ci ci waa CNG bi la wala jàpp ngeen ci ministre bi lan moo tax wala yéen da ngeen a déggoowul ci seen biir. non man moom yi daale personnellement li may wax man laa man xulóo ma Demba mm. mais ànd boo rek jàppal diw da cay mm. mais nag li solo mooy mbir moom bu fekkee ne ñun intérêt bi nga xamee ne mooy da koy dox nañ ñëpp jàppandoo intérêt boobu ñu dem dox ko xeex ndoo xeex ndax ñun ñëpp ñoo bokk mm. bokk te amul ci kenn pour tey ku tëgg arène nationale ak ku tëgg Iba Mar yem ñëpp ku ne tëgg na kon nañ leen defaraat toogaay bi xool làmb li ko doxal jëmale ko ci kanam ñun ñëpp ñu bokk ko doxal ko li koy doxal nag mooy état dina toog promoteur yi toog mbër toog ménagère toog loolu dina bokk ci ne maame làmb ñoo ko mën a defar ndax tey jafe-jafe yi am euh, CNG moo am ci tey diggante promoteur ak ministre bi tey promoteur ak ministre bi am na ci ñoo xam ne am naa ñoom mais na war a xool ne maame nga tey itam ñoom dañuy dem ñeneen ñëw te àdduna li gën am solo mooy defan naa dara wala ñu ne la ah diw de dara am na solo trop daal ñuy jooytu nag loolu moom maame di lu ñu bëgg trop ndax depuis Macky Sall bi mu toogee ba léegi man mosuma gis ku jóge axlu làmb dem pale ñu ne Macky Sall da ko recevoir te recevoir nañ fi ku ne ni nga gisee élève bi tey di jaay di euh, jooytu li li ko naqari tey promoteur bi lool war a taxaw jooytu o ko naqari ndax ñun dañuy dem fu ne ñuy dem pour jël suñu moyen bopp jox ko mbër avance yaa ngi gis chaque dimanche làmbam te li ngay fere ci fero li ngay léeg-léeg dañuy tëgg làmb sax doo ci am dara da ngay tëgg pour perte wala nga tëgg ngir jot sa xaalis ngay tëgg am coona te yooyu yëpp ku la séentu tey ji ñun am na fa wone mënutu faa toog mënoo dem ci kenn ne ngay ñaan kon dañu bëgg ministre bi moom li ñuy wax nii nu mu gën a gaaw ñu jàppale nu ci te li may wax ni moom man la engagé daal waaw du bii promoteur wala bee promoteur mooy promoteur yëpp dañoo war a dankaloo ñu dem xoolee Macky Sall li nu naqare ci làmb ñu wax ko loolu la am lu mën wax man hmm. mbokk avant l'indépendance ba na nopp moom ak borom ma Abdoulaye Wade président suñu maam Abdoulaye Wade ñu koy ñaana yàlla may ko gudd fan ak wér moom rek laa fi mës a gis président bu dalal ñaari mbër ku ci mel ni euh, mooduloo ak Balla Gaye seen coow loolu muy woo invité leen jubóole leen waaye ba tey am na ci mbër yoo xamante ni dañuy génn défendre couleur réew mi bu ñu ñëwee dañ naan leen président dina leen recevoir waaye ba tey gisuñu président recevoir leen tey promoteurs yi tamit ñu ngi bëgg loolu ngir am na loo xamante jotale kenn ku dul njiitu réew mi moom mi nga xamante ne moo boole réew mi yëpp yilif ñu mu doon benn moom la promoteur yi soxla ngir mu dalal leen kon ñu ngi koy ñaan képp koo xamante ne mën na faa yegg mu dalal ñi nga xamante ne ñooy promoteurs yi ba ñu wax ko jafe-jafe yi ne ci làmb ba mënuñu koo saafaraal léegi fi mu toll nii ñu ci bari ñu ngi wax ñi ci promoteur mbër yi sortie ñu def yëpp ñu ne président CNG Alioune na dem doy na parce que boo defee vingt vingt ans wala vingt quatre ans doy na Euh, dañoo soxlawaat keneen ñu yees en tant que promoteur yow nan nga ko gisee. waaw loolu moom dafa dafa am solo sax ndax nit ku ne am réew loolu moo koy doxal mooy tey nit nekk fi ba càgg neex neexatu ñi ñi mu jiite neexatu leen nu wàcce ko fal keneen te làmb moo toll foofu duñ ne deful fi dara ndax am na lu mu fi soppi mais am na loolu itam dafa yàq làmb tey CNG boo xoolee tey jii li li li làmb amoon soxla ko lu bari da koo génne ci làmb te loolu mooy cafka ka làmb di li di noonu indi ci làmb dafa bokkoon ci làmb làmb di indi ginaar yi ñii di indi bëy yi di jaan loolu dafa bokkoon ci làmb làmb nañ ci fexee rek ñaar yi rek ñu génne ko ci mooy béjjén ak paaka mais li ci des lépp la yokkate làmb la day taaral làmb tey xoolal da nga daa xool Yékini bu ma saa daan dugg si béjjén boobu muy yor def xam nga sànne ko loolu beneen affaire la woon tey ji Ama Baldé bi bëri ak ak kii ak Baye Pël Iba Mar ñu jekk-jekk ama génne yeew mi xam nga ñëpp dañoo taxaw ku ne di wax làmb am beneen boo xam ne da ko doon doxee ñu jekk-jekk ba jàgg génne ci yëpp ay dii dañ ko war a génne ci làmb loolu dafa yàq làmb làmb nañ defaraat toogaay bi xam nga wutlu lu koo xam ne maanaam nga xalaat nañ ne lépp lu yokk làmb rek mu ngi ci loolu mu mu mu defal ñu loolu daal ñun loolu lañ soxla pour l'instant nii hmm. waaw. mais se gis-gis mooy Alioune Sarr euh, ñu ñu ñu bàyyi ko mu continuer CNG bi wala wala li li yi bëgg ñun bëgg ci làmb mooy mu wàcc gis-gis bi. non non xam nga fii moom làmb ku liggéeyut. Hmm. waa làmb ñëpp taxaw ne liggéeyo li waa làmb ñi ëpp gis ne maanaam CNG bi Alioune Sarr daa war a man bokk naa ci man. Hmm. waaw ndax nag lamb itam boo defee li nga war a def ministre bi ne noo am réew biñ maa ngi seetlu ñun amoon na jamono boo xam ñun ndaw ñi dañ doon wax naan amuñu ko bu Ablaye Wade demee amuñu ko yor kon bu nu Macky Sall yoree itam te amee keneen koo xam ne day ñëw toogaat nañu bàyyi ne Alioune dafa war a dem ñu xool lamb te ñun waa lamb nu bañ a tànn kenn ku euh, jiite nan xool koo xam ne doy nañu te bëgg na lamb dox jëm ca kanam nu jiital ko maam intérêt lamb dox daal man loolu laa ci ñu ci bari dañ naan bu alin saar demee kan mooy jiite CNG loolu nga yaakaar du xas bu rëy rëy rëy ci làmb non làmb ñu ko jiite ñi ko mën a jiite bari na fi tey jii boo xoolee tey jii ñi nekk ay ku mel ni góorandooy président seen amateur war nañoo mën a woo seen jël ci ñaar dem ci geneen kuréel ak amateur jël fa ñaar jël ci euh, tey ménagères yi ñaar jël euh, ñaari entraîneur kenn ku ci nekk ñu jël andi la ci biir andi ñi am xam-xam nga xam ne dañoo ne ci wàllu sport ñu boole leen ak ñooñu lënkale leen ñu xool ñu liggéey jëm ci kenn ku ci ne du doo xool sa ndax tey amateur bi su fekkee ne maame tey dafa dañ ko jël andi ci biir CNG mu ne fi maame li nga xamee ne amateur da koy jooytu saa koy jooytu bu ko neexee amateur yi mën dem moom koy kaas tey euh, mbër yi suñu amee lu leen naqari mën nañoo dem xam ne naqari ne ko jalam mën dem wax ko ménagère bi fenn fa nañu jël ñoo xam ne ñoo leen ni li ñuy bëgg di kaas ñoo ne maanaam am nañ ko ñu koy kaasal ci biir CNG bi lamb dox jëm ca nañu fi ne tey jii ñoom Yékini ñoom ñëpp comme demoon nañ ci lamb ba bàyyi ñu kenn ko nañ jël fa kenn war nañoo jël kay booy kayre ak Yékini boole leen jël ñeneen ak ñeneen ak ñeneen tey comme li ma rek soo jëlee tey ñu mel ne ay ñoom président góorandoo yi ñoom jël leen boole leen ci affaire bi Kourdiène am na xalaat xalaat boo mën a joxe tey lu doxal lamb góorandoo ñaata yoon ñaata la nekk presque 35 ans nga def ko ci lamb nekk amateur yi daal amateur la woon nekk promoteur Fallou Ndiaye noonu keneen noonu keneen noonu kenn ku ci nekk ci wàll wa nga nekk rek boo ci jëlee kenn lamb mën nañ ko doxal mu jëm ca kanam waaw lamb moom buñu naan noo bu Alioune Sarr wala bu wàccee amuñu ko am na ñeneen ñu ko mën a yor xam ne ñu ngi lamb waaw. yow de bokk na ci journée bi nga xamante ni moom nga tëggoon arène nationale bokk nga ci journée boo xamante ni dafa jeex rek daanaka njàngoro bi ñu tëj euh, programme yëpp yow jotoon nga joxe yeneen mbër avance bu dul woon boobu. waaw le 29 février man maa tëggoon maa diggante ñagas ak caatu waalo ma ciy sant yàlla bu baax di wax ne def dara mu àgg borom la neex kon nag na ñaan daal xam nga Macky mu defaral na sunu arène bi ñu am tey arène bi dafa war am sponsor leader boo xam ne moo fay ba bépp promoteur bu fay tëgg tey état bi na ko man te man na laaj fere organisation ci arène bi loolu war na yomb na état jàppale jëm ca ndax tey affaire yi su promoteurs yi comme li Fallou wax keroog suñ booyee côté lamb moom dina ay jafe-jafe yu bare bare ndax booy fii la ñuy jóg ci banque yi leen dugg de banque yi la ak bureau di ko toj am na fi mbër yu mag ay ñoom soq ak ñoom gàmm gay ñii ay ñoom forus ay ponkal lan ñoom bari na fi ay ñoom góor a soog ñaata mbër ñoo fi nekk ñu ñu ñu man mbër sëkk mais bu ne mul luñ def dañuy defee leneen lul loolu de kon état bi na jàppale làmb làmb dox jom kanam làmb ñun ñoo ko moom xale li ci nekk lépp ay xale lañ ay xale ñoo ci nekk boo xoolee mag ñi ci nekk ñu néew la te làmb lañ yaakaar te am nañu ci bàyyi seen métier ndax làmb beneen bi ci topp may lancé appel mbër yu ndaw yeeg ñi nga xamee ne dañoo amoon métier nañ gën a fonk seen métier ndax na état bii fi nekk bu fekkee ne jàppale wut làmb promoteur yi kenn du fi xaru tëgg làmb du force dañuy dem dellu ci la nekkoon muy commerce bi daal man loolu laa moom lu may wax. Hmm. licence bi ngeen dagg ku ne xam ne ni promoteur day dagg licence 300000 nga dagg. Hmm. waaw licence 300000 laa dagg foofu am na lu ma ci war a wax sax mooy ku mel ne suñuy xarit ñoom Sambay ay ñoom Mor Mbaay bari na ñoo xam ne dañoo tëggoon ay journée te benn ñoom jotuñu tëgg ci licence tey bu déwénee buñ ne Alioune Sarr wàcce nañ ko loolu tam bokk na ci li nga dañ ko war a souligner promoteur mënut a dagg licence 300000 saison bi ñu jëm déwén ñu ne noo ngay daggaat beneen licence loolu tam dañ ci war a waxtaan ñun waa làmb bala ñoo dem ca daggawaayu daggukaayu licence ba loolu am na solo pour ñu war cee waxtaan ñi nga xam ne daggan licence itam war nañoo def appel comme li waxal nii ñu waxal ko ku ci ne tey promoteur mbër mi soomul ku ko euh, soomul ku jàppale tey jii pour dimbali ko ci ba mu amee avance ak léegi yàgg na trop avance am jeex na tey promoteur bi la mu yoran ci xaalis da doon seen journée bi jàll mu jotaat xaalisam léegi mënutu e jot tey jii bu lamb jooju tey bu ñu demee ba ne lamb tëj na di jiwaat il faut am feneen beneen toogaay bu ñu toog pour waxtaan ñoom ñaar ba tënk te promoteurs ñu leen jàppale lamb foofu xam nga lamb day niil te tey promoteur mbër mi am avance ab am na foo xam ne bu fa tollee daan noo la ma avance daaw nga yàlla mu dal benn promoteur dal li ma bëgg a xam mooy ba xam ñett ñetti weer yi nga xamante ne activité amul euh, yéen promoteurs yi ba xam dajaloo ngeen ci waxtaan ci lenn loo xamante ni nas ko ci ba xam day yokk làmb li koy jëmale kanam ak nan ngeen mën a def ba lamb jóge ci jéego yi daje ngeen ci. waaw ñun moom euh, chaque jour ñu ci biir groupe bi ñu nekk président Pape Fall léeg-léeg mu dugg ñu wax benn débat xool li nga xamee ne mooy suñu faay ak li nga xamee ne bu ñu ko defee mooy suñu yokkute ñu def ko waxtaanee ko ba lépp tënku daal. après mais depuis booba léegi xam nga réunion mënut am ndax comme dañuy bañ daje mais daal ci biir groupe bi moom waxtaan waxtaan lu yokku groupe bi ak lu nooy boole ñun ñëpp ndax dañ koy def waaw koor gi rek moo mujj koor gi dañu génn ay millions yu bari waaw jox kenn ku nekk la nga xamee ne moom mën naa dem sa kër te yaakaar nga ne koor gi yëpp de dina mën a yor daal loolu def nañ ko ci suñu kees waaw ngeen jox ci promoteurs yi ñi nga xamante ni war nañ cee mën a jot yëpp jot nañ waaw promoteurs yëpp jot nañ ñuy sant nag bu baax a baax président Pape Abdou Fall mais di wax ne li tax sànga ma kenn mënut a dem bàyyi ko mbas mi bi mu amee ñun promoteurs yaakaar naa bokk nañu troisième personne ñi nga xamee ne mu néew mu bari ñoo jëkk a dem ànd ak ministre sport yëkkati suñuy moyen joxe ko te pourtant état joxuñu ko de ñun ñoo yëkkati jox état kon état war nañoo delloo njukkal ci affaire yi nga xamee ne ni gàllankoor la am amee gàllankoor nii mu dooleel nu jàppaleenu te xam ne ñun lépp lu yokk réew mi rek ak lu yokk ndaw ñi loolu la ñuy dox waaw sa digganteeg yeneen kuréel yi parce que ku ne xam na ni ci kuréel gi nga bokk Pape Abdou Fall moo ko jiite am na beneen kuréel boo xamante ne tamit am na ci làmb muy ñaari kuréel yoo xamante ni ñëpp ay promoteur làmb lañ nan nga gisee loolu ndax loolu ñu ci bari rafetlu wuñ ko ci làmb ndax bokkul ci luy honoré làmb bokkul ci luy defar làmb. waaw loolu loolu moom xam nga làmb làmb géej la kenn mënu ko mokkal kenn ku ne na bay sa war mais li ñu def itam day yàq ndax day am ñoo xam ne maanaam dañuy am tendance maanaam ni dina ne ci benn benn groupe daanaka détaillé làmb yëpp su amee moom day waral loolu ndax euh, tey maanaam naa kuréel goo xam ne tey ku mel ni euh, Baba Diaw moo tëggoon sox ak ak man ak moom ñoo àndoon liggéey daaw jëkk yàlla dogal liggéeyatuñu amuñu benn problème mais tey lenn lu ci nekk rek dañuy xool ne maame nga bu ñu bu ñu toogul waxtaan dara du sotti ndax tey sama intérêt mën naa a doon intérêt Baba Diaw Baba Diaw intérêt mën naa doon eh, sama sama intérêt mais bu ñu toogul te maame xool ne intérêt yi promoteur yëpp nañ ko dankaloo dem jooytu ko Macky Sall liñ bëgg dox ñun ñëpp kenn ku ne yor nga loo tëgg ku ne ngi tëgg kenn demu ci sa morom benn promoteur bu mën a taxaw ne yi daal ñu a laa woo téléphone ne la alma wala alma 150 000 du ma ko def kon ñoom itam duñ ko def kon nañu xalaat ne ñun lu yokk làmb moon ñun ñëpp ñu fexee dankaloo dem bi nga xamee ne moom la ñu xeex ñu xeexandoo ko ñun ñëpp man daal loolu la am lu may wax waaw a waaw may kontaan jëw bu baax Baye Jili di kontaan ci sa caméraman waaw bor borom mbég mi maa ngi koy siyaare bu baax ba Basirou di nuyu président Gora Ndoye mi nga xamee ne maa ngi moom amuñu man maa yoroon ba yàlla dogal ma ñu wàcce ma Gora Ndoye yor ma koy ñaanal suñu borom itam mu doxal ba fi mu bëgg a rek xam nga fi mu bëgg a àggale làmb daal mu àggale ko fa di ñaanal waa làmb yëpp di wax ne làmb daal nañu ñaanal suñu borom defal nu jàmm di ñaanal Cheikh Ndigal Sène mu yàgg fi te wér di ñaanal suñu Abdou Karim Mbacke ak Baye Jili borom léegi-léegi maa ngi koy ziare di wax ne ñaan yëg ko bu baax maa leen di ziare bu baax jaajëf jërëjëf jaajëf jërëjëf seetaan wasaare làmb loolu leen leen ci ki nga xamante mooy ñu production promoteur la jàpp dégg message bi nga xamante ne ko mu jëm ci làmb ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen xew xew làmb jërë ngeen jëf.